أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعطيب بنظرة تأتي لنا بالظفر
suratul xadiidi saaru weñ gu ñuul makkiyatun koj ak makka la aw madaniyatun wala kojug medina la samaanun juróom-ñett la waaye shuron ak ñaar fukk aayatan ci laaya sabaxa sabal na lillaahi ñeel yàlla maa fi samawaat yi la nekk na ci asamaan yi juróom-ñaar wala ardi ak suuf yi juróom-ñaar wa huwa moom buur boobu ñuy sabbal al azizu mooma di aji not ci nguuram al xakimu mooma di aji xereñ ci njëfteefam lahu aji nekk la ñeel ko mulku samawaati nguur ak asamaan yi juróom-ñaar wal ardi ak suuf yi juróom-ñaar yuhyi dana mu dundal ci sos ku mu nama dundal wa yumiitu dana mu rey gannaaw dundal googale kum nama rey wa huwa te moom qadirun aji xattan la mu ala kulli shay'in ci lépp lëf huwa moom buur al awalu mooma di aji njëkk dara dara dara njëkku ko te xamut fu mu tàmbalee wal axiru mooy aji mujj dara mujj ko te xamut ab dayoo wa zaahiru mooy aji feeñ dara dara muuru ko tegtal yi yépp a ngi tegtale loolu wal baatinu mooy aji nëbbu moom it dara xeesu ko wa huwa moom buur alimun aji xam la mu bi kulli shay'in ci lépp lëf loolu mooy melo yi nga xam ne dëgg-dëgg moo tënk xam-xamab xam yàlla mooy la walu dara njëkk ko mooy laaxiru dara du ko mujj mooy zaahiru dara muuru ko mooy baatinu dara xeesu ko loolu mooy yàlla yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam joxe na ñaan ci baat yooyu ne na kenn ci yéen waxtu wu bëggee ñëw ci lalam tëdd na tëddee ndeyjoor te wax baat yii allahumma rabbi samawati wa rabbi al ardi wa rabbi al arshi al azim rabbuna wa rabbu kulli shay'in xaaliqu kulli shay'in faaliqu al habbi wan nawa munzilu tawrati wal injili wal qur'an audu bi audu bika min kulli sharrin anta axidun bi nasiyatiha wala ci beneen riwaaya audu min min min sharri kulli dabbatin anta axidun bi nasiyatiha bu ko defee nga tekke nag allahuma anta al awalu fa laysa qablaka shay wa anta al axiru fa laysa bacdaka shay wa anta zahiru fa laysa dunaka shay wa anta al batinu fa laysa dunaka shay boo jàngee loolu bu pare nag nga ne aqdi an na dayna wa aghnina min al faqri mu ne képp koo xam ne def nga ñaan googu ñaan ko yàlla dana fay say bor te dana la xoomalloo walis ñàkk huwa moom buur la nii mooy buur bi nga xam ne xalaqa bind na mu asamawaati asamaani juróom-ñaar wal arda ak suufi juróom-ñaar fi sittati ayaamin ci dikk ak juróom benn fan ci fani addina yi su mastawa topp mu xemoo alal arsi ci kaw arasam ga yaalamu dana mu xam maa yaliju la dana mu xaraf fil ardi ci suuf xam na lépp luy wàcc si ci suuf ci taw ak lu dul moom wa maa yaxruju ak lana mu génn minha ci moom ni ki gàncax ak mbell yeeg yeneen yu dul moom wa maa yanzilu ak la dana mu wàcc min asamaay ci asamaan ni ki yërmande ak mbugal wa maa yaxruju ak la dana fi xéeg fiha ci asamaan ci jëf yu yiw yi nga xam ne jullit ñaa ngi koy jëf wa huwa moom buur maakum aji nekk la mu ànd ak yéen ba tey borom jalaal ne ci xam-xamam ay na maa kuntum sa fu ngeen nekk mu ngi nekk ànd ak yéen fu ngeen mën a nekk wallahu yàlla basirun aji gis la mu bi ma taamaluuna ca la da ngeen jëf ko benn borom xam-xam doon na ci wax ak baay ci makka di ko wax ne ko am na yenn barab war nañoo sellal yàlla ci mu di fa nekk ndax masalan cabinet yeeg barab yu sobe yi yàlla di fa nekk daal yooyu di ko taq wala mu di ko xeeñ loolu warta am bàyyi na ko mag yow ci luñ nekk fi ne nii mu ne ko guddi mu ne ko ndax guddi gi buñ demee ci wanag wi duñ ko fa fekk mu ne ko ankay mu ne ko ndax dana dara dana ko taq ci ci ci ci ci la nekk ca wanag wa mu ne ko déedéet mu ne ko buy bëccëg it ndax bëccëg bi dara dana ko taq mu ne ko yàlla mi bind guddi mu mën a nekk ci barab yooyu te dara du ko fa taq mu bind bëccëg mu mën a nekk ci barab yooyu te dara du ko fa taq moom yàlla moomu bu soobee dana nekk ca barab yooyee te dara du ko fa tax moo tax mu ne mu ngi ànd ak ñun fuñ mën a nekk wallahu yàlla basirun aji gis la mu bi ma taamaluuna ca la da ngeen jëf ko lahu aji nekk la ñeel ko mulku samawaati nguur ak asamaani juróom-ñaar wal ardi ak suufi juróom-ñaar wa turja'u te deef na delloo ilallahi jëm ci yàlla al umuru mbir yi yëpp mbir yi yëpp nag dañ koy jël delloo ko ci yàlla yuuli ju dana mu xarfe allay la guddi fi nahaari ci bëccëg yàlla mooy jël guddi xarfe ko ci bëccëg wa yuuli ju tamuy xarfe nahaara bëccëg fi layli ci guddi mooy jël bëccëg itam xarfe ko ci guddi wa huwa moom buur kowe na alimun aji xam la mu bi daati suduri ca la ca dënn ya aminu gëm leen billaahi ci yàlla wa rasulihi ak yonentam wa anfiqu dundule leen mimma jaalakum ca la mu def na leen mustaxlafina ngeen di way hutu fii ci moom li leen yàlla jox ngeen di nekk ci kutalal yàlla mu nekk ci seeni loxo mu ne na ngeen ci dundule buntu sarax boobu moom
fa ladina ñaaña nga xam ne amanu gëm nañu minkum ci yéen wa anfaqu tañ dundule lahum aji naka la ñeel leen ajrun ab yool kabirun bu di aji màgg wa malakum analoog yéen laa tunfiqu laa tuminuuna gëmti leen billaahi ci yàlla wa rasuli ak yonant bi wa rasulu te yonant bi yaduukum dana mu woo leen li tuuminu ngir na ngeen gëm bi rabbikum ci gërëm seen borom seen waqat axadata jàpp na misaaqakum ay kollëre seen in kuntum dem nekk ngeen muuminiina di way gëm wa moom buur la lii mooy buur bi nga xam ne yunzilu dana mu wàcce ala abdihi ci kawteefam ci jaamam ayatin ay kawteef bayinatin yu di way bit yàlla moo wàcce ci jaamam kawteef yoo xam ne yu bit la te mooy alxuraan ji li yuxrijakum ngir na mu génne leen mina zulumaati ngeen tukkee ci lëndami kéefar ila nuuri jëm ci leeri gëm yàlla wa inna allaha ak naka yàlla la raufun aji ñëwetimu la bikum ci yéen rahimun aji yëram la mu leen wa malakum ana loog yéen allah tunfiqu ba dunduliti leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla walillahi te aji sax la ñeel aji nekk la ñeel yàlla miraasu samawaati donoog asamaan yi juróom-ñaar wal ardi ak suuf yi juróom-ñaar bu fekkee dundulewu leen ci yoonu yàlla itam na leen hóor ne yàlla moom moom donool asamaan yi juróom-ñaar ak suuf yi juróom-ñaar ndax ker bu mu digalee israfil mu wal bufta bi ba mu wal bufta bi keroog liñ moom alal yeeg yépp dafay mujj des ci kaw suuf te kon yàlla mooy doon lépp te yàlla soxlawu ca dara ku doylu la walis boppam waxatuma leneen laa yastawi yemootit nag minkum ci yéen man anfaqa kat dundale na mu min qablil fatxi ca njëkk fatxu makkata wa qaatala dem xare ulaayika ñooñale gaa yi azamu ñoo gën a màgg darajatan ci yool min alladina ci ñaaña nga xam ne anfaqu dundale nañu min baadu ca gannaaw ña dundale woon lu jiitu fatxu makkata ñooñu mënuñoo am yool ak ñi nga xam ne dañoo ñëw dugg ci lislaam gannaaw fatxu makkata te ñooña dundale woon nañ ba noppi xare woon nañ itam ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa qaatalu tañ xare wa kullan képp ci ñaari kuré yi nag mooy ña dundale woon lu jiitu fatxu makkata ak ñiy dundale gannaaw fa fatxu makkata wa adala dëhal allahu yàlla alxusna aljanna ñépp nag yàlla dëhal na leen aljanna wallahu yàlla xabirun aji xam la mu bi ma taamaluuna ca la da ngeen jëf ko te dana leen ko fay man da alladi ana kan di kaaka yuqridu dana mu lebal allaha yàlla qardan ak lebal xasanan guddi aji rafet ana koo xam ne kii ñëw na nangoo lebal yàlla lebal bor bu rafet a rafet mu ne fa yudaa'ifahu tamuy fulande ko lahu ñeel ko walahu aji nekk la ñeel ko ajrun ab yool karimun bu di aji tedd ñu ne bor bu rafet bi waram xam-xam yi wax nañ ne mënta nekk lu mooy bata la amee fukki melo bu njëkk bi mooy na nekk alal ju dagan alal ju lew joo xam ne yaa ko moom ba ca tegu mooy na bokk ci sa tànnee fi alal nga saraxe ko ba ca tegu ba ca tegu mooy nga saraxe ko te fekk yow yaa ngi ko soxla ba ba ca tegu mooy nga joxe sarax si jëme ko ci ki ko gën a soxla ba ca tegu mooy nga nëbb sarax si loo man ci nëbb ko ba ca tegu mooy bu bul ñax ki nga koy jox ba ca ba ca tegu mooy nga jublu ca jëmmi yàlla bu ca njistal ba ca tegu mooy ne mooy nga xeeb ko lu mu bëri bëri mu bañ a rëy ci sa kanam nga xam ne la ngay joxe lu mu bëri bëri daal néew na ak yow ba ca tegu mooy mu bokk ci li nga gën a bëgg ci sa alal yi ba mujj ba nag mooy bu bu ca gis mukk sa teraangay bopp ak toroxtaane yi ki nga koy jox loolu mooy sart yi nga xam ne boo ci leb lebalee yàlla yàlla ne na dana la ko fay pay gu rafet yow ma tara bés ba dana gis al yow ma taral yow ma tara bés ba dana gis al muminina way gëm ñu góor ña wal muminaati ak way way gëm ñu jigéen ña nuuruhum ak leer seen yasaa dana mu dox bayna aydihim fa kanam seen ñu ngay gis seen leer mu ngay dox ci seen kanam wa bi aymaanihim ak ci ndeyjoor seen malaaka yaa ngi leen di wax naan leen bushraakum ak bég seen ñu ngi leen di wax ne bég leen al yawma tey jannaatun ay tool la tajri yooyu dana daw min taxtihaa ci suufam la naaru yool yi ñeent xaalidiina mbir muñ di way nattaleeg beel fiihaa ci aljanna joojule zaalika loolu le huwa moom alfawzu moom a dig texe alazimu jadi aji màgg yawma yaqulu bés ba dana wax almunaafiquuna way naafiq yu góor yi walmunaafiqaatu ak naafiq yu jigéen ñi lilladina ñeel ñaaña nga xam ne amanu gëm nañu ñu ngi leen di wax naan leen unzuru seet leen unzuruna seet leen ñu geestu leen ñu ndaxte bis ñu jumu min nuurikum ci leer seen ndax jullit ñi yàlla daf leen di defal leer ci seen kanam ak leer ci seen ndeyjoor moom la ñuy demee aljanna ndax wax nañ leen lu jiitu péncam yàlla yàlla dafay talañ asamaan si te dafay dindi jant beeg weer yi fi doon leeral lépp lu doon leer yàlla daf ko fi dindi leer ak yàlla rek mooy des keroog pencam yàlla leer ak yàlla googu nga xam ne gii nag mooy nekk ca pencam yàlla jullit ñi la koy jox jullit bu nekk xar kanamam ak leer dana ci nekk goo xam ne moom lay gisee waxtu wu yàlla feñceeg jaam yi nag ba tàggale jullit ñi ak xéefar yi bu ko defee mu des naafiq yi nag ci seen diggante naafiq nit bu nekk xar kanamam ak leer dana ci nekk goo xam ne moom lay gisee waxtu wu yàlla feñceeg jaam yi nag ba tàggale jullit ñi ak xéefar yi bu ko defee mu des naafiq yi nag ci seen diggante naafiq yi nag ñu ngi topp ci kaw jullit ñi waaye ñoom amuñ leer gu leen mën a leeral ñu ngi xoo jullit ñi nag naan leen geestu leen ñu ndax ñu mën a jumu ci seen leer yi ndax ñu mën a gis fi ñuy jaar bu ko defee nag ñu tontu leen xiila waxeef leen na leen irji'u dellu leen waraakum ca gannaaw seen na ngeen dem boon ca fañ ko doon jëlee leer bi ca péncam yàlla faltamisu sàkku leen nuuran leer wala ñu ne dellu leen ci àddina fañ doon liggéeyee loo xam ne lii danañ ca amee leer gii lu mën a xew dellu ga du mën a xam bi nga xamee ne waxante woowu am na fa duriba te defeef baynahum diggante seen bi suurin ci tata yàlla dal di yëkkati nag tata ju rëy mu dal di dox seen diggante ñoom nag gisatuñ jullit ñi sax ba mën a wax ak ñoom lahu aji nekk la ñeel tata jooju baabun bunt baatinuhu ca biitam fii aji nekk la ca moom arrahmatu yërmande biit tata jooju nag yërmande nga ca biir wa zaahiruhu biteem nag min qibalihi ca wàllam al adaabu mbugal ma yunaaduunahum danañu xooleen ñoom ñoñ ñoom nafiq yooyu nekk ci gannaaw tata ji alam nakun ndax nekkun woon maakum ànd ak yéen ndax ñun ànduñu woon ak yéen ci topp yàlla yi ngeen doon def xaalu ñu wax ne balee aanaam walakin waaye lu fi nekk fatantum nattu ngeen anfusakum ay bopp seen ci nafiq yéen nag da ngeen a nekkoon nattu seen bopp ci dugg ci ak nifaaq wa tarabastum teñ te ngeen di muñandiku ci jullit ñi xew-xew yi ngeen nekk nag di muñandiku xew-xew yi mu daanu ci kaw jullit ñi wa garratkum te xot leen al ama wartabtum te ngeen sikk ngeen sikk itam ne bés bii dana am wa garratkum te xot leen al amaani yu mébét ya xataa jaa ba dikk amrullahi mbiram yàlla ci dee wa garrakum te xot leen billaahi ci yàlla alxuruuru xotaakoon ba te mooy saytaane fal yawma tey laa yuxadu defu jàpp minkum ci yéen fidyatun am njotoo tey jii jotoo mënta am wala min alladina du caagan tukkee ca ñaaña nga xam ne kafaru weddi nañ mawaakum saxuwaay seen annaaru safaraaha hiya moom mawlaakum mooy aji méngoo seen wa bii sa ban na almasiru mujjuwaay ba dem safara la alam yaa ni ndax jegewut nag lilladina ñeel ñaaña nga xam ne amanu gëm nañu an taxshaa bu ñu ragal bu ragalat qulubuhum ay xol seen li dikrillaahi ngir waat ngir waat ak yàlla wa ma nazala ak la wàcc na min alxaq ci dëgg li wàcc ci alquran ak li ci wàjj ci dëkk jot na nag jullit ñi seen xol nooy ci seydna abubakrin siddiq radiallahu anhu wax na ne am na ay gan yu jóge woon yamaama ñu toog laay ji wàcc ñu jàng ko ci ñoom ñu jooy jooy jooy yu métti ba yóbbaale Seydina Babacar ci jooy Seydina Babacar ne leen jërë ngeen jëf ñu nit day wax dëgg nii lañ meloon waaye nag dañoo toog mbir mi yàgg ak ñun xol yi woo waaye nag kenn warta fàtte loolu kon nag yàllaa ngi fàttali nit ñi ne seen xol yi war nay nooy ngir di fàttaliku yàlla ak di fàttaliku waa di yàlla yi am na yu nit di def ñàkk fàtte loolu rek moo koy waral wa ma nazala ak la wàcc na min alxaq ci alquran wala yakunu bu ñu nekk kalladina di kenn naka ñaaña nga xam ne utu joxeef na leen alkitaaba téere ba min qablu ca njëkk ni ki yahoot ak i nasaraan fa taalata yàgg alayhim ci ñoom al amadu diit ba diit ba yàgg ak ñoom fa xasat tewaw qulubuhum ay xol seen nga xam ne dootuñ nooy ci ci tudd yàlla wa kafirun aji bëri minhum ci ñoom faasiquna way génn la ñu topp yalamu xam leen ne anna allaha naka yàlla yuxyi dana mu dundal al arda suuf baada mawtiha ca gannaaw ak deexam qad bayyannaa ñun day bidal nañ lakum ñeel leen al ayaati tegtal yi tegtale kattan sunu laallakum ndaxte lee yéen taaqiluuna ngeen xelu inna al musaddiqiina naka way saraxe ñu góor wal musaddiqaati ak way saraxe ñu jigéen wa aqradu tañ lebal allaha yàlla qardan bor xasana qardan leb xasanan bu di aji rafet yudaafu def na fulande lahum ñeexal leen walahum aji nekk la ñeexal leen ajrun ajrun ab yool karimun bu di aji tedd ñi nga xam ne nag dañuy saraxe ci góor ñi ak ci jigéen ñi di ci lebal yàlla bor bu rafet ñooñu yàlla ne na danañ am yool boo xam ne bi yool bu tedd lay doon walladina ñaaña nga xam ne amanu gëm nañu billaahi ci yàlla wa rusulihi ak yonentam ulaayika ñooñale gaay hum ñoom assaadiquuna ñooma di way dëgg ah ulaayika ñoom hum ñoom assiddiquuna ñooma di way jóggi daye ci dëggal wa shuhadaa way seede ña wala way shahid ña inda rabbihim aji nekk lañ fa borom seen lahum aji nekk la ñeel leen ajruhum ab yool seen wa nuuruhum ak leer seen walladina ñaaña nga xam ne kafaru weddi nañ wa kazabu kafaru weddi nañ wa kazabu tañ narloo bi ayatina ci alquran sunu ulaayika ñooñale gaay asxaabul jaximi ñooma di warami jaxim yaalamu xam leen ne annama alxayaatu dunia naka dundab àddina bi la laibun pola wa lahwun tey foxantu wa zinatun tey taar yoo xam ne ñooñ àddinaa ngi koy taarloo wa tafaaxurun tey puukareyante baynakum diggante seen wa takaasurun tey hëppalante fil amwaali ci xalal yi wala awlaadeeg ci doom yi te masali xaysin mu ngi mel ni kib taw ajaba héem na alkuffaara héefal yi nabaatuhu gàncaxam su ma yehi ju topp mu wow fa taraahu gisaa nga ko musfarran muy aji gel su ma yekkoonu topp muy nekk xutaaman dim poñit wa fil axirati te aji nekk la ci àllaaxira azabun mbugal shadidun mu di aji tar wa magfiratun mbax min allahi mu tukkee fa yàlla wa ridwanun ak ngërëm wa mal xayaatu moo gën koo xam ne kii nag jë jë tànn nga loolu na nga xam ne loolu mooy gën mbaa mu tukkee ca yàlla ak ngërmaaneel yàlla wa mal xayaatu dunia de dundab àddina bi la illaa mataaul xuluuri nda la yóbbata yóbbalab aji xadu la saabiqu njëkkante leen ilaa magfiratin jëm ci mbam min rabbikum bu tukkee sa ca borom seen wa jannatin ak aljanna arduha yaatuwaayam ka ardi samaayi kam yaatuwaayam asamaan la wal ardi ak suuf uiddat xadoof na ko lilladina ñeel ñaaña nga xam ne amanu gëm nañu billaahi ci yàlla wa rasuli ak im yonentam dalika loolu le fadlullahi ngëneelal yàlla la yuutiihi dana mu jox ko man yashaa ku mu soob wallahu yàlla dul fadli mooy borom ngëneel alazimi ba di aji màgg maa asaaba la nga jot ko min mus la jot na la min musibatin ci musiba fi lardi ci suuf wala fi anfusikum du caageen ci bopp seen illa fi kitaabin ndara nekk na mu cib téere te mooy lawin mahfuz min qabli an nabraaha ci njëkk bu ñu bindat ko inna dalika naka loolu le yasirun aji jàppandi la alallahi ci yàlla li kay laa taasaw ngir bu leen jàq ala ma faatakum ca la faat na leen wala tafraxu ak bu leen jég mbégam rëylu bi ma aataakum ca la jox na mu leen ko wallahu yàlla laa yuxibu du mu yool kulla muxtaalin bépp aji rëylu faxuurin kuy fuukareyaa kon ladina ñaaña nga xam ne yabxaluuna danañu nay wa yaamuruuna te ñuy digle na te ñuy digal naa sa nit ñi bil buxli ci nay fu man yatawalla ku dëdd na ci li nga xam ne yàlla waral na ko ci moom fa inna allaha naka yàlla alganiyu mooma di aju doylu alxamidu mooma di kuñ sant laqad arsalnaa ñun de yónni nañu rusulanaa ay yonent sunu te mooy malaaka yi bil bayinaati ci lay yu weex yónni nañ leen ñu jëm ci suñ yonent yi wa anzalnaa te ñu wàcce maahum ànd ak ñoom alkitaaba téere bi wal mizaana ak maandu ñu wàcce téere bi ak maandu ci seen diggante li yaquma ngir na taxaw annaasu nit ñi bil qist ci maandu wa anzalnaa wàcce nañ alxadiida weñ gu ñuul fiihi aji nekk la ci moom ba sun ba sun xay shadidun wu di aji tat wa manaafiu ak ci njëriñ linnaasi ñeel nit ñi ñu ne jumtukaay yooyu moom la aadama wàccaale woon ba muy wàcc ci aljanna nekk na juróomi yëf waaye guddi na ba fasale gi du mën a am wa wa manaafiu ak i njëriñ li naa si ñeel nit ñi wali yaalama ak ngir na xam allahu yàlla xam-xam ak feeñal man yansuruhu ko dana mu dimbale ko wa rusulahu ak yonentam bil xay bi ci fàddu inna allaha naka yàlla qawiyun aji dëhër la mu azizun aji not la mu ci ngóoram wa laqad arsalnaa nun day yónni nañ nuuxan yonent yàlla nuux wa ibrahima ak ibrahima wa jaalnaa tañ def fi durriyatihima ci ngir ci seen ñoom ñaar an nubuwata yonent ga wal kitaab ak téere ya ñoom yonent yëpp yonent yàlla ibrahima mooy seen baay la ko dalee ca moom ba ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla muhammad rek la ci ismail jut waaye ñi ci des yëpp isxaaqa leen jur fa minhum aji nekk la ci ñoom muhtadin aji jub wa kasirun ñu bëri minhum ci ñoom faasiquuna way gën lañ topp su ma qafay naa topp ñu tofal ala asarihim ci jëxit seen bi rusulinaa ci yonent sunu wa qafay naa tañ tofal bi isa ci isa ibni mariama kay doomi mariama wa ataynaahu jox nañu ko al injil al injil wa jaal naa def nañu fi qulubi alladina ci xoli ñaa ñi nga xam ne ittabauhu topp nañ ko rafatan yërmande wa rahmat rahmatan ñëweti wa rahmatan ak yërmande wa rahbaniyatan ak ak labbehu ma katabnaaha farataaluñu ko alayhim ci ñoom illa ibtigaa ridwanillahi lu may sàkku ngërmandel yàlla fama raawha sàmmuñu ko xaqa riayatiha dëgg-dëggi sàmmam fa aatayna tañ jox alladina ñaaña nga xam ne amanu gëm nañu minhum ci ñoom ajrahum ab yool seen wa kasirun lu bari minhum ci ñoom faasiquuna way génn lañu topp yaa ayuha alladina amanu e yéen gaañi gëm alquran ittaqullaha ragal leen yàlla wa aminu gëm leen bi rasulihi ci yonentam yuutikum mu jox leen kiflay ni ñaari cët min rahmatihi ci yërmandeem waaye jaal tam def lakum ñeel leen nuuran leer tamshuuna bopp da ngeen dox bihi ci moom wa yaxfir tam baal lakum ñeexal leen wallahu yàlla gafurun aju bayi la mu ñeexal ay xejam rahimun aju yaram la muy leen li yàlla yaalama ngir bu xamat alu kitaab yi ñoo ñëpp téere an laa yaqdiruuna ka xattantiñu ala cheyin ci lëf min fadlillahi ci ngëneelal yàlla wa anna al fadla ak naka ngëneel bi yadillaahi aji naka la mu ci loxol yàlla yuutihi dana mu jox ko man yashaau ku mu soob wallahu yàlla dul fadli borom ngëneel la al azimi la di aji mag allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim lu ci dajeeg sawaab yàlla nañu yàlla fule ndeel yool lu ci dajeeg njuumte yàlla nañu yàlla baal te xamal ñu ko yàllaay xam ne ca dëgg-dëgg yàlla nañu ko xamal te defal ñu ci barke yàlla mi ko tàmbali ba indi ko fii yàlla na ko àggaleeg jàmm te bañ cee defam ndox barke alquran yàlla ji barke ki ko wàcce barke kiñ ko wàcce ci moom barke diinul islam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim